ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baal xaq it beneen yoon di wax rek ne sërite bi nga xam ne digge woon nañ ko ci leen bëgg a ñëw mu nekk thème boo xam ne dafay dugg ci ak jimaaxa sëy waaye bala ñëw ci thème bi dinaa ko defal luñ tuddee laytaay laytaay nag mooy leeral maanaam ñii nga xam ne ñoom ñoo war a sëy ak li nga xam ne nii maanaam war na dox ci seen diggante tuuti ci ak mbaax mooy li nga xam ne moom laa ko bëgg a laytaaye sëy yàlla da koo daganal ci góor ak jigéen ñun nit ñi góor ak jigéen ci la sëy dagan ci ñoom waaye du góor ak góor du jigéen ak jigéen moo ci jiitu ba ca topp mooy damay wax ne toujours damay wëlbatikuwaat di dénkaat njigéen ñi ak baax xam ne lépp mi ngi dépendre ci ñoom suñ baaxee lépp baax suñ bonee lépp baax waykat arab ba ne woon na ida taaba aslul mare taabat faronhum as mbir su cam la baaxee lépp day baax su cosaan la baaxee lépp dafay baax waaye bu yàqu lépp yàqu jigéen nag alquran tudd na ko ñetti façon jabar tudd yàlla wutal na leen ñetti façon tur loolu du ay isaara yu mag la maanaam tur wune am na jikko alquran tudd na jigéen tudd na jabar tuddee ko imraa nga jàpp bu baax mooy soxna sa luut sa ak soxna sa nuuxu ñoom ñaar alquran ba mu leen tudd imraha la leen tuddee dégg nga jàppaat bu baax tuddu na jigéen tuddee ko dégg nga euh, dégg nga saaxiba tuddee na ko saaxiba saaxiba boobu it jikko la moo tax mu tuddee ko ko nga dégluwaat bu baax tudd na jigéen tuddee ko zawju tudd na jabar tuddee ko zawju zawju boobu it maanaam euh, jikko la moo tax mu tuddee ko zawju yooyu yëpp dinañ ko leeral ngir génn jigéen ñi ñu mën cee bàyyi xel xam ne ñoom ñooy lépp marxatu imraa su ko alquran tuddee mooy jigéen ji nga xam ni bëggul jëkkëram ci jëmmam ji ci kaw bëggu ci biir boobu baaxul ki nga xam ne bëggul jëkkëram ji ci buy neex bëggu ko ci bu naqadi boobu baaxul jigéen ju bon joo xam ne nii la ngay def sa jëkkër ci kaw baaxul langa koy def ci suuf baaxul kooku la alquran di wax imraa dégg nga la ngay jàng si mu ne waa mbaata luuxtin kaanataa taxta abdayni min ibadina saalixayni فقانتاهما فلم يحني عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين imraxa la ko tuddee moom soxna sa luut ñu doon ko wax waaxilat waaxilat moomu ak mbonteefam ci ak doon fësal ci kaw ci kanamu lool di ko ko fësal ci biir néeg yi maanaam lam koy def ci biti ci ñaawteef lu ko raw la koy def ci biir néeg kon loola taxoon maanaam alxuraan ko tëkk bu métti kon jigéen bëreel ba bul nekk imraxa bëreel ba bul nekk shaahiba saaxe ba mooy ka alquran doon wax euh, dégg nga yow ma yaxfiru maxu min aqi wa ummi wa abi wa saaibati bis boo xam ne daf lay daw saaxe ba mooy ki nga xam ni dégg nga su neexee day ànd ak yow su méttee daf lay daw kooku lañ tuddee as saaxiba alxuraan nee na moom la moom moomu kóllëreem fasu dëgëru boo leen demee ba yowmal qiyaam sax daf lay daw kon saaxiba ñu ngi ne du ku am kóllëre bu dëgër waaye moo tane nag imraha mooy ki nga xam ne bëgg na jëkkëram ci booy neex waaye bu méttee moom dafay daw kooku lañ tuddee ab saaxiba jigéen nag góorgóorlu ba nekk zawju suñu maam xawaa euh, dégg nga zawju la woon soxna si aadama moom zawju la alquran moo ne ko euh, yaa aadama uskun anta wa dëkkal fii ci aljana dégg nga nga nekk dégg nga nekk ak sa soxna ngeen dëkk ci biir aljanna gis nga boo nekkee zawju rek da ngay dégg dégg nga dëkkal ci janna da ngay dégg uskun anta wa zawjukal janna heure boo dekkee fexe ba fexe ba yéegal sa bopp zawju maqaama la rek jigéen bu góorgóorlu ba yéeg fa rek da ngay dégg uskun antawe wa zawjukal janna ba tey foofu dinaa waxaat beneen mbir ñu bàyyi ci xel bu baax a baax dégg nga ñoom euh, euh, euh, góor ñi mooy fuqahaw yi ñu ngi tojee ci baatu uskun boobu ñu wax aadama ne ko uskun dëkkal anta wa zawjukal janna génnee sart yi nga xam ne góor gi da ko war a matal mooy lan aagi alif gi hamsa gi mooy at watu mooy la sëy gi ànd gi ngeen di ànd al watu sëy gi ngeen ni sëy yéen ñaar maanaam loolu mooy alif gi dégg nga gi mooy euh, dégg nga euh, sukkunun dégg mooy dëkkuwaay dégg nga wutal ko dégg dégg nga dëkkuwaay loolu mooy Chine gi dégg nga keef gi mooy kiswatun xoddaay nga wutal ko mbalaan di ko wodd di ko solol dégg nga noon gi mooy nafaxa ñeenti ponk yi la fuqahaa yi tënk ne moom la sart yi nga xam ne moom la góor di yore jabar mooy na koy nay ànd ak moom na koy séyee nay dëkk ak moom di séy moom maanaam beneen ba ca topp mooy na koy xoddu beneen ba ca topp mooy na ko dëkkal kër gum dëkk waaye na ko defal nafaxa moom la tënk nag ci poskon nga xool yàlla ba mu waxee aadama ni ko uskun nit ñi déggee ci ne dana ko dëkkal mi ngi naan ko dëkkal sa soxna si ñeent yi ma lay wax kon nag aadama fexe woon na ba dëkkee ñeent yooyu ngalawaay ñun bu mu yàqoo ci ñun dégg bu jaaro bi réeree ci ñun dégg nga bu caq ngalam bi sànkoo ci ñun nan góorgóorlu ba ñu nit ñu def uskun googu ci suñ soxna yi kon loolu it maa ngi koy dénk ko képp koo xam ne góor nga di waxaat rek góor ñi beneen yoon di leen déclarer it foofu ne leen li ñu tuddee jigéen ci alquran baat yi baat yi mu ko tudd yëpp il est faible baat yooyu yëpp dañoo faible les mots faibles rek la ko tuddee dégg nga baat yëpp liñ ci firi rek buñ ko firee da xam ne lii du luñ war a du luñ war a toppantee lii du luñ war a patam patami kon jigéen kenn du ko patam patami jigéen dañ koy ndànk ndax lépp li ko alquran tuddee dafa dafa woyof bi ci jiitu wax na ne nisaaukum xarsun lakum faatu xarsukum anaa situm jigéen ñi ay tollam tool ku nekk xam ne ne du loo xam ne dañ fay daw di fa kër-këri di dàqante ci biir kenn sañu jël sa tool bàyyi ko di ko dàqante tool mooy loo xam ne kenn du ko tëb rek bàyyi noonu doo ko xooli doo ko doo dàq ñax doo dàq rab ya fay ñëw doo doo ñax doo doo gajji doo def dara tool mooy loo xam ne kenn xalaatu bàyyi sa tool rek ji rek dem tëdd sa kër déedéet da ngay ñëw di waaye di def lu ne di sonn kon ñu ngi lay wax ni la jigéen dañ koy toppatoo benn ba ca topp mooy alquran lu mu ko waxaat ka annahunna baydun maknuun dafa demee ni ki ay nen la nen tey ku ne xam ne ne nen du lu ñuy jël di sànni nen kenn du ko patam-patamee nen dañ koy yërëm nen dañ koy gunge ba muy yegg boo koy jël da ngay def nànk boo koy teg def nànk kon jigéen nen la doo da ngay def nànk bañ mu tax gis nga ko fi yoroon ay nen di xalab di sànni def na neex doo am cuuc doo am omle kon nag jigéen kenn du ko xooxal maa ngi koy dénk mbokki góor ñëpp beneen bi alquran lam ko wax hunna libaasun lakum wa antum libaasun hunna mbalaan la mbalaan kay ku ne xam na ne yow boo doon def sa caaya su xotteekoo nga sànni ca poubelle soo amee sa simis bu doon ba dagg nga sànni ci poubelle ci kanam tuuti danga dox ak yaramu neen da nga nekk ku rafle da dox génn ñu ne dof danga dox génn ñu xeeb la kon soxna si nga yor sa kër gi mbalaan la bu tilimee waay waay fóotal komeel paaseel dugalaat ci armoire bi ci kanam tuuti danga nga ko génnewaat ñu ne xanaa du du du du du yëreem butilim bi mu soxlawante kon jigéen su amee ay jafe-jafe àndal ak moom muñal ko ci naxal su nekkee jigéen wérut yërëmal sonn ci moom def rek yàlla dina defal tawféex ba nga xam ne nii maanaam doo musa rafle ci say jamono yow yaay kii fóot say mbalaan kay sànni ay mbalaanam na kay xotti mbalaanam muñal ko tuuti da nga gis mu mu torox dootoroom da nga gis muy doxtatu sol mbalaan kon jigéen alxuraan lii bi ne ko mbalaan loolu yëpp pour wan ku góor gi ne ko gën koo fonk gën koo téye man damay wax ne ñaari waaw yi dégg nga war naa tax kenn ku nekk fonk sa sa sa soxna ñaari waaw bi ci jiitu mooy waañ wa waañ wa yow benn dix mille ko ci wala benn sin mille yaakaar ne yaa roy gaynde ci moom mu ne ci waañ bi matt bi di ko lakk wala gaz bi tàngoor bi di ko lakk yendu fa baaral xippi di xolli jaar ci baaraam yi di dagg ci paaka yi dégg nga jànkuwanteeg mbooleem fitnaay waañ saxaar samay noy loolu yëpp bu paree maanaam ngir rek dab sa bànneex loolu kay ku la foofu waxtu wu ne dëkk ak yow ay at te ñaata at doo xam nu waañ ba di saf dëgg-dëgg war nga war nga fonk ngir loolu war nga fonk ngir geneen waaw muy wasin wasin wasin jar na maanaam fonk fonk jigéen bu baax a paax mag ñi de liñ si bàyyi woon mooy sa soxna bu wasinee da ngay dem ba ci moom ne baal ma kon suñu mag ñu baax ñëpp dañ ko daan def dégg ñi nga xam ne ñoom la ñuy roy tey ñii lañ daan def seen soxna yi dañ daan dem neleen leen baal ma àq ginnaaw bu wasinee pare dangay xool yàgg moom yéenay siq lal bi boo leen siqee lal ba lay jóge ci yow mu teel la ko ñaata weer mu teel la ko su la ko téelee dégg nga nga dem ak moom ba nga xam ne nii maara day taali maanaam am na neuf mois ci biiram lépp mu ngi la ko kàddeel bis ba muy génn suqiful bakkanam mën na cee topp alxuraan ne su ma sabila yasaru maa ci jàpp su ma ci jàpptoon fa muy génnee nit dafa mën a jaar xoolal loolu ki la taxaw foofu dëgg-dëgg pour man boo dee góor war nga koo delloowaan njukkal kon ñaari waaw yooyu rek damay yax ne ji góor gu ne war naa tax nga fonk nga fonk sa soxna nga téye ko bu dëgër dëgër waaye jigéen ñi it maa ngi leen di wattandikuloo dégg nga ngeen di mer di wax mer rek def action loolu maa ngi leen koy tere di leen ko waxandikuloo damay wax rek ne jigéen juy say maa ngi lay ñaan boo la sa jëkkër tooñatee gaawal nga dem jàpp julli ñaari ràkk toog ñaan yàlla yàlla suturaal la yàlla jéggal ko soo koy def wala alxasim sa moodu ma ngi fay jur àdduna bi dinañ ko dégg sa paate mi ngi fay jur àdduna bi dinañ ko dégg waaye fi ak yaa ngi def action ci ginnaaw mer action boobu ma nga màbbal sa junney junney junney tabax yoo tabaxoon ngir sa moodu mi wala sa wala wala wala wala sa paati bi wax nag seen ngir say doom ñu ngi nettali benn xis rek ci tënk daf ma marqué trop benn góor goo xam ne sa saalum gii la xewe woon e, yoroon daara soxna sa amoon ak moom problème ci diggante bu ndaw rek soxna sa génn fekk laax ba mu tegoon moom moo ko tegoon ngir ndékkil xale yi sañ daare taalibe yi daal di wéq laax ba mu këpp jëkkër ji ne ko buubal gaaw tonnil tonnil mu ne ko bu dee man rek tonneegu ma bu dee man rek ton wan nagu ah jëkkër ne ko lii suma laax de laaxu taalibe yi la tonnil mu siisu waaye gis nga mbokk yi ci tënk rek ab tuuti lañ ci teg doomam mu xalaat mu yóbbu ko ndar gi mu jàngi yokk xam-xamam ba mu jugee ndar Saint-Louis xale bi nekk Kanfoore miraas ak xel mu xam-xam lépp da koo jàng nis fu la xel nii lépp la jàng waaye keroog bi mu ñëwee ci ab diir soxna si góorgóorlu di ko tiitaroo nag dem wooy nijaay ñu takkal ko soxna def lépp ah jëndal ko lépp ab diir bu tuuti ñoom ñu ngi ko bëggoon dooleel samp ko diir bu tuuti yàlla këpp mémoire bi këpp bopp bi xale bi dof dof ñu yóbbu fu ne jaay sareet yi jaay lu ne lu ne jaay nañ ko def lu ci gën a mooy xale bi fu mu day wéq tànk yi day wéq rek di ne leen woo nijaay yi ne leen kii dootul wér maa ngi doog di ñëw bée ñu arrêté jaay meeg faj mi dootu dootul wér ba ma këppee laaxab baayam ba ma wéqoon wéqam yi moo tax ma xam loolu ba ma wéqee laaxab baayam ba su fekkee ba ma baayam waxoon tonni ko tonni woon naa ko xel mii gën naa dinañ ko mën a fajaat waaye ba ma waxee tonni ma tonniwu ma moo tax ma gëm ne bopp bi ñu këpp bu dootul tonneeku bu pencam yàlla xoolal loolu maanaam dara waral ko lu may jigéen ju mer def action te lim muñal taalibe yi kenn xamul nu mu toll waaye xëy na yàq ko ci benn bis kon wattandiku leen di mer di def action góor ñi ngeen bàyyi xel ci ñetti baat yooyu alxuraan tuddee jigéen tuddee ko mbalaan tuddee ko nen tuddee ko tool ñett yépp dafa laaj maanaam ak toppatoo di wattandiku bu baax a baax maanaam ñu nit di leen di leen doyadal di leen te tënk di leen di leen finnaal dañu wattandiku loolu bu baax lii daal dama ko defoon comme laytaay pour maanaam ñu jublu ci thème bi xam naa nag après dina ñëw ci thème bi mu gën a leer a leer waaye diñuy wax rek ne góor noonu la ko yàlla bindee suy doxaan bu ñëwee ngeen baal ma ci baatu doxaan su ñëwee buy ngoro bokk bu ñëwee fekk la nga nekk sa yaay dalaa tëj dooy génn mu ne la waaye man bëgguma ngay toog del génn del génn ma lay gis moo la wax benn jàppal benn moo la génnloo toogaat ba ci kanam ne waaye bon de bàyyi dem a ñaan bëgguma ngay toog di ma ñeeru soo soxlaa wax ma nee na la dem a ñaan muy ñaar toogaat ba ci kanam naan la su su may wax ak yow damay bëgg ngay tontu quoi mais su may wax ak téléphone da ngay noppi rek ngir rek kees mu ngi lay demande dem a tontu ñett yi mu la demande yëpp boo leen demee sa kër ga buy sëy bi di tas mooy si yooyu lay tasee boo yegsee booy génn buy génn nga topp ko mu ne loolu fu ma jëm nga topp ma mere la ci te moo la daan wax del génn boo boo boo ko ñaanee ñaanaat ko mu ne la dangaa mën a laaj tàllal rek laaj laaj laaj rek te moo la daan wax deema ñaan suy wax ñaari baat ñetti baat nga tontu benn mu ne la bu may yëkkati samay baat nga may tontu baal su may wax nga may tontu te moo la daan wax deema tontu kon góor saxul maanaam kon góor fixé waaye yen jigéen ñi na ngeen gën a góorgóorlu góor ñi maa ngi leen di wattandikuloo ngeen mel melokaan boobu di wax ni rek lii yàlla dañ ko defoon comme laytaay pour jublu ci ab jimaa sëy waaye ñu ngi ñëw ci beneen audio bi ngir jublu ci jimaa boobu sëy boobu gën koo leeral dégg nga ñu ngi wax ne rek ñu ngi jéggalu nag ci guddal bi bu baax a baax a baax mbokk yi ñu continuer ba tey suñu thème bi dañuy wax ne ak jimaa sëy dégg nga bu bëri baaxul bëggun mu bëri bëggun mu néew sëy bu bari baaxul nee na ñeent gi nii baaxul wa kasratu saraabi wa taami wa kasratu aljimaai wal manaami kullu min mazkurin ya ixwaani yadurru bil ajzaami wal abdaani wa kasratu saraabi baril naan wa taami ak lekk wa kasratu aljimaa yi bari looy sëy wal manaami ak nelaw mu ne kullu min mazkurin yaa ixwaani yii mu la tuddal yépp mu ne yadurru bil ajsaami wal abdaani dafay xalak siti mujj dafa lañ yóbbee xalkate waaw kon bëri li ngay lekk baaxu kii bëri li muy lekk soo seetloo dafay foog mu bëri lu mu naan soo bëree li ngay naan soo seetloo da ngay bëri looy taf li ki bari li muy taf yi da ngay gis ne moom day gàtt xel ku gàtt xel lay doon kon loolu loraange boppam a ngi woon bi mooy kii la ëpp li muy sëy moo la ëpp li muy nelaw ki ëpp li muy nelaw moo la dàq fàtte kon yi yëpp lor la yoo xam ne ñu ngi ci biir yii nii ma lay wax booy lekk-lekk bu bari da ngay naan naan lu bari sooy naan lu bari dangay ngay tafli lu bari booy tafli lu bari da ngay fàtte lu bari moo tax ab taalibe moom ci la gën a bon ci moom lekk bu booy sëy sëy bu bari da ngay nelaw nelaw bu bari ndax da ngay nagam nelaw yu bari yooyu ngay def daf lay yóbbee fàtte gu jéggi dayo ak bokk nag yeneen loraange yi nga xam ne euh, wallahu taala alam Hmm? kon nag mbokk yi nan wattandiku sëy bu bëri sëy nag ñëpp xam na ne am na talazu waaye na ya dur am nay lor kon ñu wéttandiku lor yi daf ci am solo bu baax a baax nga moom sëy moom waaye bëggun bu néew bee new bi yor soxna di sëy ak moom lu néew a néew loolu it maanaam bëggun ko dégg mooy xaliilu néew si néew lool xaliil gu jéggi doyo loolu moom bëggun ko ndax da ngay lor ku jigéen ci dégg ku mel ni imaam Shaafi'i ah, moom wax na ne an al jimaaha xaqun li zawjin fala yajibu alayhim faalaw mu ne daal maanaam sëy ak sa soxna dafa war dégg nga day daf dafa jaadu dafa nekk dëgg joo xam ni nii munul ñàkk nga di ko def kon nag danga nga war di sa soxna waaw moom loolu ku mel ni Hanbal wax na ci nee laa yajuuzu li rajulin an yatruka jimaa imraati akthara min arbaa ashurin wa huwa haddul ilaahi mu ne du daggan ci dénga nga góor mu tëb rek gireef soxnaam bañ ko séyee ci lu teew ci ci bakkanam rek rek rek dégg nga wala mu nekk ci yeneen lu mën a doon ba tax mu toog lu mat lu ëpp arbaa ashurin ñeenti weer waaw mu ne loolu su ko defee rek mën na indi ci seen diggante ñu def ak ilaahu mooy ngi ñoo tàqalikoo wala il le faut ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu tàqale leen firsey bi dana koy waral ndax dana ci war ñu def ko mu ne ndax loolu su amee rek mu ne jaadu na pour ñu def ci ñoom ñoom ñaar luñ tuddee firi seen sëñ dégg nga kon waxatuma la nag dégg nga maanaam nga bàyyi sa soxna ay at wala lu ko ëpp kon kooku moom daganu dégg nga daganu waaw ku mel ne boo demee ci ku mel ku ñuy wax ibnu xizaam moom dafa wax ne annahu yajibu ala rajulin ma daama qaadiran an yujaamiu imraatin baada kullu taahirin marratin ala aqla mu ne dafa war ci jëkkër fii ak mi ngi am kàttanal sëy rek mi am kàttanal sëy ginnaaw lab gu mu ànd ak soxnaam su néewee ba néew mu ne ah, marratin alal xaqala na nekk benn yoon kon ginnaaw lab gu ne mu sëy ceeg moom benn yoon mais tegle ay laabi laab bañ a sëy kooku dafay lor ndaw si waxuma la lor ko ci xañ ko plaisir mais da koy lor ci ay jàngoro ndax waxtu mu nekk rek li doon règle ci moom loolu nen la woon boo xam ne dafa waroon accompagner sa ndox pour mu nekk formé wu transféré wu nekk doom dégg nga il le faut danay transféré wu nekkaat vitamine ci yaramam dundal ko dundal ay neeram dundal ay siditam dégg nga loolu booy jàng dawra damewi danañ la jàngal lu mel noonu boo demee ci matière bu ñuy wax waaye lu ci mën a xew maanaam ibnu xisaam moom mi ngi waxee ci xaq bi war sa diggante moom kon da nga war a seeg moom ginnaaw laab gu ne bu néewee ba néew na nekk benn yoon mais ëpp na ngay tegle ay laab jigéen di mbërëg ba set gisaat mbërëg ci toog ba gisaat mbërëg te amul rapport set toogaat ba gisaat mbërëg te amul rapport set loolu vraiment vraiment ba pare waaye dafa am ay loraange ba pare waaye borom xam-xam yépp dañoo àndandoo dàq ko kon nañ ko wattandiku bu baax a baax ndax ànd gi nga war a ànd ak moom dafay nekk waajib sa diggante ak moom dégg boo xoolee sax dégg nga dañuy wax ne ku mel ne Seydina Omar dox na ci mbedd màkk yi romb benn buntu kër gis ji euh, for nopp ci benn palanteer ñaari jigéen ñu toogoon di waxtaan seen jëkkër tukki woon kenn ki naan ay suma amoon góor gu ñëw di ànd man ci sama lal bi ba sama lal bi di kéeg kéegi di ko mébét bi mu koy mébét Seydina Omar tiit ci kàddu gi ci la dem laaj doomam ji ñuy wax Ndeye Afsal ci lenn ci riwaayam Ndeye ne ko di mu ne ko jigéen ñaati weer la mën a toog pour ba ba muñal borom këram ñàkk seeg moom mu ne ko ñetti weer mu déggaat mu demaat ci beneen soxna ngir na ndey xasatu amaana dafa am kersa kersa baay ak doom da dox seen diggante mu laaj jeneen jeeg jeeg gi ne ko dégg nga juróomi weer ci lenn ci riwaaya Seyna Omar daal di def dégg nga lu mu tuddee atumaaniya daal di koy def tanaqul daal di yemale leen ci diggante bi daal di joxe décret ne ñeenti weer atte woowu ci jeeg bële la xam ne kersaam dafa dañ cent pour cent atte woowu ci ndey xasatu mi nga xam ne dafa am kersa yi cent pour cent mu jëmale ko ci diggante bi joxe décret ne ginnaaw si tey bu kenn tukkiiti tukki moo xam ne da ngay passé ñeenti weer àndoog sa soxna ca tukki mooma wala il le faut nga yeewi soxna si ba keroog ngay ñëwaat boo ko fi te fekkee takkaat soo ko fekkul nga takk keneen décret boobu di wéy ci islam Seydina Cheikh décret boobu la doon jëfandikoo mooy li ñu euh, dégg nga euh, soxna si nga xam ne yeewi na ko maa ngi réeree woon turam maa ngi ci ndokkel sëñ Mouhamadul Habib Cissé ci eh, bayaanam bi nga xam ne jëlee naa ci tur bi muy leeral ne mi ngi ci téere bu ñuy wax ni nisaaw tijaaniya mu ne ndaw soosu mi ngi tudd xadijatu yaayam tuddoon alimatu nekkoon doomi bàjjan ci Seydina Cheikh papa mayoon ko ko njëkk feebar ba di ko rey muy gaañu Seydina Cheikh keroog ba muy dem da koo yeewi ngir jëfandikoo masala ñii bañ a lor jigéen mu ngi dem xamul kañ lay ñëwaat te mën naa passé ñeenti weer mu yeewi ndaw si kon ngal la ñun waaye ñun it nan nan nan di jëfandikoo masala bàyyi fi soxna tukki ay at tegoo ko fenn jigéen nag moom daa dagganut xaraam na ci moom muy tukki bàyyi fi jëkkër lu ëpp euh, dégg nga tukki mu sori bokk ci gàttal rek tukki mu sori lool ba pare te ànd ak jëkkëram wala ànd ak kot armalam magam mag wala rakam benn da ci ànd ak benn rek waaye su loolu moom kese dagganut muy tukki waaye yaa ngi dégg jigéen yow góor gi nga xam ne da tukki bàyyi sa soxna lu mat fukki at yaa ngi yaa ngi Amérique donte moom mi ngi lay muñoon seen day wax bu firi sëy bi ndax bu bëggee muñ foofu duñ fa firi sëy bu bëggee moom dañ koy bàyyi muñ waaye yow fexeel ba nga xam ne ni da ngay daw àq gi daw sa kaw ndax bu muñ ak mu muñul yow àq gi mi ngi daw kon hmm? dini nettali rek benn xisam benn mag mu am fu la mu ko defoon doomam dafa euh, dem Europe takk soxna bàyyi fi soxna si soxna si mooy yàlla ci ginnaawam ëmb bi mu ñibbisee mu ñëw fekk fi ëmb tegu ci baat ne ko amoo loo may expliquer dajaleel say bagage te nga génn kër gi abal ma fase laa mu dem bay génn papaay jëkkër ji wax ndaw si na ko taxawal woo jëkkër ji mu ñëw ne ko demal jàpp te ñëw ji xamul lan la mu dem jàpp ñëw bi jëkkër jàpp ñëw ji génn kaamil ne ko bañu mu dem sa jabar la heure bu la neexee fase ko waaye ndaw si balaa génn kër gi danga ma giñal ci kaamil bii ne yow musoo mooy jëkkër ja ne fa di katkat yi di katkat yi ba il ne faut mbokk yi ba tey ñu continuer di jégalu na ci dagg-daggee yu bëri waaye di wax rek ni dafa am jimaa dafa am loo xam ne nii dégg nga xaraamun dafa xaraam am loo xam ne makruh dañ ko sib am loo xam ne dégg nga euh, adaabun ay teggin la jàng nan dégg nga laytaay bi nga xam ne laytaayal nañ ko dégg nga waaye dañuy leeral rek sey ci ak ndaganam fan la aju bokk na ci bokk na ci comme li ma la waxoon góor ak jigéen ci ñoom ñaar la dagan ñaari way dencante ci ñoom ñaar la dagan dégg nga alquran nee na dégg nga nisaakum xarsun lakum fa aatu xarsukum ana shixtum kon dagan na ne pour ngeen sey ndax na ngeen leen dikkee dégg nga fu leen sob dégg nga euh, kon loolu mi ngi lay jàngale mën ngeen a foo mën ngeen a sëy beneen laaya joo xam ne mën na dëggal ne sëy dagan na bokk na ci mooy wa min ayaati an xalaqa lakum min anfusikum azwajan li taskunu ilayha yàlla mu ne man maa leen bind ci seen biir ma bindal leen jabar bu ko neexoon bindal ñu ko ci xar wala bàyyi ma waaye mu ne min anfusikum ci seen bopp laa leen ci seen biir laa leen bindal jan soxna li tas ko ngir ngeen dikkee leen kon nag loola laaye la yoo xam ne mooy génne xalaal gi dagan gi xam ne ni daggan na pour ñu sëy kooku kenn weranteetu ko waaye nag xaraam gi nag lañ war a leeral ci yan dimension la sey sa soxna dana xaraam ci ñeent bërëb dana xaraam ci ñeenti bërëb ida kaana fi lxaaidi day xaraam wa ida kaana fi nifaasi day xaraam wa ida kaana fi sawmu ramadaani yaani assawmu day xaraam wa ida fi duburi da nga yaani xaraam yii ma lay wax nii ñeenti yépp dimension la yoo xam ne jigéen da cay toll da nga fa yeggee yaag moom dafay xaraam bii ma lay wax nag sa bakkan moo la fa mën a jéemuy forcé garab la goo xam ne tere woon nañ ko aadama ci aljan ne ko garab gi exemple boobu rek laa ko joxe ñu ne ko bu ko witti boo ko wittee wàcc lii it garab la goo xam ne soo ko wittee tooñ ci tool bi la bokk waaye dañ ne la bul ko bay saalum saalum yëpp xam nañ luñ tuddee jànji jànji day ne ci biir tool waaye kenn du fa jaarale machine bi kenn du ko bay ndax lan du du jeeb bi du sax moo tax nag ginnaaw ak jigéen jànji la alquran ne la tool baa ngoog bayal fépp waaye nag teggil jànj yi bu fa ji soo fa jiyee du sax kon nag kooku dimension boobu moom ñëpp dañ ci bàyyi xel bu baax a baax bu nekkee ci mbërëg dafay xaram dégg nga nga ànd ak sa soxna dégg nga jàng nañ ko ci téere yi alquran yaxal na ko ca suuratul baqara bam naan wa yasalunaka anil mayidi qul waada na nisaa fi lmayidi wala taqrabuhunna xata yatahurna fa ida tataharna fa haatuhunna min aysu amarakum allahu inna allaha yuhibbu tawaabina wa yuhibbu mutatahirina mu ne bu jigéen ñi nekkee ci mbërëg bu len leen jege bu mbërëg ma segee nag fa ida tataharna bu fekkee ne set nan fa na ngeen leen dikkee min aysu amarakum allah ci ni leen ko yàlla digalee inna allaha yuhibbu tawaabina wa yuhibbu mutatahirina ànd ak soxna ci nekkut ci lu rafet te yàlla dafa bëgg lu lu lu dafa bëgg lu rafet it sharia hmm? eh, lu mu tere rek am na mbóot yàlla ba mu ko teree ba ma bàyyi loolu xel ci danger yi ci nekk bokk na ci ci ànd ak soxnaam ci mbërëg gis nga dëreetam ak ah, dëreetu mbërëg boobu ak ndoxam man ñoom bu mu jaxasooyee ba yàlla natt doom juddu ci bariwul nag li muy am nga sa nit ci régal mu am ci doom mais bis bu la yàlla nattoo inna allaha ala kulli shay'in qadir yàlla moom dégg nga alaysa allahu bi ahkamil haakimin moo xarañee lu ne gis nga bu la nattoo nag ba doom juddoo ca xale boobu maanaam benn boo xoolee puune benn day doon puune wala mu doon lu ñu tuddee mëngal mooy mëngal wala mu doon ku judduwaale ak gumba ñett yi boo demee ci téere bu nan jiwaat daf la koy jàngal ne la jigéen bu àndeek moom ci règle mu for fa ëmb dafay indi puune wala mu indi luñ tuddee mëngal ji day raser kanam forme dara du génn wala mu indi ndax dafay woy dara ji moo woy moo tax du génne forme du génn wala dafay indi judduwaale gumba ñett yi dañuy wax ne maanaam da koy indi kon ànd ak sa soxna ci règle nanga ko wattandiku bu baax dafa dangereux suñu borom teree na ko te ba topp rafetut te yàlla dafa bëggul rafet ba ca topp mooy bis bu ci loraange googu amee doo xam foo koy waxee kenn bëggul doo am doom mu mel ni neneen waaye nag taxu ñu ne puune yëpp eh, dañu dañu leen règle leen jur waxul ñu leen ci ba tey mëngal yëpp règle moo tax ñu mel nekk mëngal yàlla danay bind jaamam nattoo ko natt boobu dara xewul waaye dañuy wax ne li ëpp lii daf feebar bii daf koy joxe kon nag ànd ak sa soxna ci règle nan ko wattandiku kooku it baaxu képp koo doon def na nga ko mataniku dégg nga charia daf la wax ne la bu amee règle daganu nga ànd ak moom waaye mu ne maa bay na suurateyaa war ko ba teyaa li nekk si diggante jumbax ba ba ca coon ci ba ci oom yi lan la xaraamal waaye xam nga loolu lan moo tax ñu araamal la loolu muy ki nga xam ne bër na ko ne moom mën na fóonanteeg ndaw si mën na raayanteeg ndaw si mën na foo bu baax te du tax mu gën a mën a téye boppam gën na ndaw si dafa amee règle kooku lañ may ne ko nga tëdd ak sa soxna ndax règle dafa yàgg day diire ay dégg nga bu dee aji tàmbali ji mu taddatun aji tàmbali ji fukki fan la ak juróom fekkee ne ah, aji baaxoo gis jële nag aadaam su fekkee aada ji dafa nekk aada ji sori fukki fan xam nga fukki fan nga gërëb sa soxna ci lal bi doo ko nuyu doo ko taasu doo ko tàpp doo ko laal doo ko def dara di ko daw comme kuy daw dëmm xam nga loolu dana am métti dana méttiwaat ci soxna si ndax moom li ëpp ci fanam daf koy mbërëg kon nag boobaa nag da nga koy lor waaye nag moo tax islam ñëwul rek ne la aaya naa la ndaw si bu ëmbee bu amee règle waaye ne la aaya ay bëti oomam ba ci ngir ne mën ngaa foog moom déggal ko ci leneen ngeen fool ci bànneexu ci fom yi wala ngeen def yeneen ak yeneen yoo xam ne nii du aajowoo ngeen sëy waaw dégg nga li dagg ci umba euh, bi waxuma nga jël sa zakara dugal ko ci am na koo xam ne jabaram dafay amee règle mu jël zakaram dugal ko ci ay lupp soxnaam yaakaar ne deful lu xaraam mi ngi def lu xaraam ndax dan koo dan la koo teree ay jusu du dagan dégg nga dan laa tere dégg nga nga ànd moom dégg nga li daggee ci say bëti oom ba ci ba ci ba ci ba kon nag foofu sa diggante luppam yi yaakaar naa ci la bokk kon foowal ak moom genn fo ba ba mën cee nelaw wala ba mën a nelaw loola charia bañu ko bin bañ mooy li laal ci jumbax bi ba ci bi nga am loo ci utiliser waaw kon bañun foonante bañun nga fo ci dënnam bañun bañun bañun leneen ak leneen ci bu amee mbërëg waaye lu dul loolu rek dañ koy bañ te kiin ko bañul mooy ki nga xam ne mën na dee na laxaabu bakkanam alquran dafa am luñ tuddee ay rumuz am na ay junju am na luñ tuddee ay ishaaratu te waykat ba waxoon ne al ishaaratu takfiiri man aqla kon ishaara borom xel yee ko moom waaye am na loo xam ne al ay qaayida la ay nas yuñ teg yooyu kenn mënu cee wutee dégg nga dangay bàyyi xel nag bu baax a baax ne yenn junj yi nga jéem koo dégg it nekk borom xel dégg nga su fekkee ne la bëti om bi ba ba ci jumbax bi ngir ne yow xam naa ko ku mën a téye sa bakkan nga wala naa nga am gis nga soo ko mënul rek maanaam ndaw si day jaadu nag maanaam mu tëdd jëm nee nga tëdd jëm nee nga laal dara bu la leeree bu ma fóonantee dinaa sëy su ma foyee dinaa sëy su ma raayee su ma nangamee dinaa sëy dañuy bëgg nga wattandiku maa ngi tegul nag ci kàddu yu baax waaye dañuy jàngale dafa laaj ñu leeral rek ñëpp jëriñu dégg wax rek nii maanaam atte kon da nga koy xool nattale ko ci alquran junj yu ni mbëree ba ba ba saxaaba yi ju ji jullee dëpp laay la ahmadu ñu ne la ahmadu xul yaa kaafiruun ñu jàpp ko di ko dëpp dégg nga di dëpp laay waaye da ngay xool alquran ba mu ñëwee daf ne laa bu salaata wa antum sukaara bu leen jegeeti julli ndem fekk yéen a ngi màndi yenn saxaaba yi nga xam ne dañuy dégg rumus yi dañuy dégg bishaara yi ñu bàyyi sàngara tamaaman dégg li yàlla bëgg a wax ñi nga xam ni amun woon xelu dégg junj ñu ne ah kon yàlla dafa wax ne bu julli jegee buñ màndi kon suñ jullee ba pare deux heures mën nañ naan balaa quatre heures ñu arrêté naan yi fekk sool yi ci ñu mën a julli cinq heures nu noonu ba alquran ñu wàcc ñaareel yoon araamal sàngara sàngara araamal nañ ko yaakaar na ñetti yoon su ma jumul ci alquran ngir lan maanaam ñi amoon dégg bu njëkk ba ba yàlla junjee lan ba ña ca topp beneen junj bu gën a leer bisaare yi ñu ba ñeneen ñi nag ñoom nasu lañ xaar qaayida bu ñëw turdu carrément ak xaraamam ñu doon di koy bàyyi. Hmm? kon nag maanaam nit ñi foofu lañ toll da ngay fexe yow gis nga euh, ki nga xam ne nii bër na ko ne bu naanee soo comme ku naan sumsum. ak xaraam ak sàngara ci moom day atti boobu day daanu ci soow mi soow mi day xaraam ci moom comme ni ko sàngara may ngir bu naanee sa soow tàqali koog soroom comme ku naan sum-sum wan yow it bu la wéree ne bu ma fooyee bu ma nangamee rek sëy da ngay bàyyi ndaw si totalement atte boobu dafay wàcc sa kaw bañ a fo bañ a def dara su fekkee mi ngi ci mbërëg ndax ran ngir wattandiku dëxali yàlla yi ngir wattandiku musiba yi nga xam ne mën na cee juddoo ak conséquences yi ma la wax ne mën na cee juddoo dégg topp mooy ida kaana fi nifaasi bu nee ci nifaas dafa xaraam nga ànd ak moom nifaas mooy deretu wasin su fekkee ne jigéen dafa wasin ba pare deret moom mu génn ci moom gis nga boo ci àndeek moom bi ci jiitu ci ay danger bokk na ci keroog àndeek moom keroog yow crée nga neef bis boo bëggee sa soxna du def planning ba pare say doom magantee lu mat trois ans ñi ngi wax ne su fekkee am nga soxna mu wasin meret mi nga bàyyi ko ba meret mi jeex takk maanaam nga bàyyi surtout ne yow man yi mag ñaari weer yi su ko defee da ngay gis ne maanaam soo leen àndaatee mën na bañ a ëmb mën seen doom yi mën nañ magantee trois ans sarian sarian lu mu wax rek maanaam njëriñam ci waaye bis boo leen àndee ci biir meret mi fa ngay jaaree créer nef da ngay rey ay koor yoo xam ne ñi ngi woon ci biir yaramam bi koor yooyu da nga leen di rey bañ dee su ko defee nag maanaam après da ngay gis ne euh, corps yooyu bu dee maanaam da ngay gis ne maanaam léegi nag antifreeze bi mu doon def dootu ko def maanaam lu ñëw rek day jàll mi ngi mel ni ko am feebaru jalis reins yi doon segg xorom seeg suukar si dafay bàyyi léegi deret ji day ñëw rek di tilim lu ñëw rek day dugg yow nag jigéen bu demee ba mel noonu mooy waral maanaam rapport boo leen def rek mu amee ci doom da gis doom yi day nekk ay kiriku doom yoo xam ne duñ mat parce que li doon taxaw ci kanamam di rey dégg nga euh, walax jaan yi nga xam ne dañoo faible di bàyyi yu mat sëkk di dugg ngir mu mat doom yooyu dafay dee bu defee lu ñëw rek daf ngay gis dafay jàll ndax la daju seen ñaari deret di jaxasoo daf ko yëg beneen bi si ñu ngi wax ne jigéen bu euh, kiyee ba pare na wattandiku di njeganaa yi ndax meret mi day yéeg waaye maa ngi koy wax ne ko lii moo gën a gaaw ci yéegal meret maanaam sëy bi ngay sëy ak sa soxna gi nga deret yooyu man yi boobu bu ne toq sa biir biir bi deret ji dafay yéegaat neer yi dafay yéegaat aju ba ci sa si di def la metitu bopp moo tax nag mag ñi de cere woon fi sa jabar bu amee doom ñëwee la yóbbu ko kër yaayam mu nàmpali waaye du nàmpal gi de waaye dañuy bañ nga topp sa bakkan muñ ko une semaine ñaari semaine nga ànd ak moom tam meret mi jeexul te deretu meret dafay dagg di ñëwaat ñu bàyyi ko xel du loo xam ne nii moom dafaa fixé sene ñu ko ciy génnee ba deux mois yi mat directement ñu néew la bërëg lañuy def mu génn juróom-ñaari fan dagg charia ne la déglu songul nga julli waaye su ñëwaatee mu ne jàppel ne da ngay mottali nifaas min tamaamin nifaas la matak matak nifaas bi mu ne waaye xanaa mu nekk ne seen diggante dafa dox fukki fan ak juróom nga attee ko dégg nga waa akicharu dégg nga xayit yan ëpp ci yooyu mu ne dafay nekk mbërëg kon du yëpp mbërëg la sax dégg waaye li ci ëpp daal bokk na ci day nekk mbërëg su amee distance fukki fan ak juróom mais su dul loolu nag nifaas la dégg te nifaas googu nag fii ak setu taxawoon rek arrêté woon rek ndaw si ne la set na rek euh, set naa rek nga dem ànd ak moom ngir ne set na fekk nifaas ba jeexutoon da koy indi ay jafe-jafe moo tax nag muñal ko foofu de danay baax trop mois mat dana la dimbali ci lu bëree bëri ndax nifaasam set wecc wecc ba pare nga mucal ko moom ci lor yu bëree bari te it baax na gaaw na ci mititu biir waaw gaaw na ci trop kon nan di wattandiku loolu bu baax a baax a baax nga beneen bi ci topp mooy ila kaana fii dégg nga euh, asiyaamu ramadan bu fekkee ne ci woor ak farata la moom daganut dafa araam kooku moom daganut normalement comprendre su daganutoon alquran du wax uhila lakum laylata siyaami rafasu ila nisaikum hunna libaasun lakum wantu libaasun hunna dégg nga uhila lakum laylata siyaami laylata gim tudd moo lay jàngal ne bëccëg ga dàq nañ ko kon bëccëg gi daganut dagan na nag ci guddi gi weeru koor nga ànd ak sa soxna ngeen ngeen sëy waaye bu dee bëccëg gi daganut kon foofu it maanaam dalay xaraam dégg nga kon nag foofu it doo fa nekk euh, di foo ko def leneen ba mu la yóbbee la nga yàq sa koor indi la ay kafaaraat yu ko mel mooy ida kaana fi duburi su nekkee ci ginnaawam dafa xaraam ginnaaw jigéen li ma la waxoon janj la alxuraan nee na lépp dagan na la bam des ginnaaw gi dégg jëlee nañ ci xadis bu wér euh, ci abdullah ibnu abbas mu ne dégg nga yajuuzu li rajulin an yastamtaa min zawjati bi jamia jismia dagan na mu an yastamtaa mu bànneexu min zawjati si soxnaam bi jamia jismia ci mbooleen jëmmam ji féppam mu ne maa xadda dubburi ba mu des ginnaawam abdullah ibnu abbas lii la wax ne nga foog moom fépp bi jamii jismi nga bàyyi xel bu baax danaa ci ñëw ci généralité boobu mu généralité ba mu des kon ginnaawu jigéen boo ci sëyee dafa xaraam ñu ngi wax ne maa bada qawmu lutin dégg nga bi wat in nisaayin fi adbaarihin na ñu ne ñooñ lut mbir yu bon yooyu yëpp mu ne tàmbalee wuñ tëbun rek di say góor ak góor de maa bada bi wat in nisaayin fii adbaarihin na ngi tàmbalee ci sëy gin doon sëy ak seen soxna yi ci seen ginnaaw yi fa lañ demee ba ci kanam ñu ne ñoom daal ginnaawu jigéen safatu leen bu góor lañ bëgg feebar ba dal leen nag yàlla la mu wax ne maa fekk gaa yi ñu feebar fa zaadu ma doon leen maradan ak ak feebar kooku it bichaara la da ngay feebar di dugg ci jëfi caaxaan yi ñàkk fayda yoo xam ne doo ko tey bam dóor la fa feebar ndax man li may wax ne damay wax góor jigéen du choix c'est une maladie c'est pas choix c'est une maladie feebar la da nga gis koo xam ne dana ko doon te daawut sol sol gu xat da gis koo xam ne dana ko doon te daawul toog ak góor jigéen da gis koo xam ne dina ko doon te te te sax benn góor jigéen mais juste feebar la feebar la maladie maa ngi wattandikuloo waat beneen bi ci topp mooy li nga xam ne xam nga ne xel da koy joxe feebar boo gis am na lu koy joxe sabab yi bokk na ci sol gu xat moo ci jiitu daf koy yóbbee nit ndax dalay yóbbee ngay yëg plaisir boo xam ne du plaisir boo war a yëg dégg sabab yi bokk na ci li yonent waxoon ci xadis ba nuru nuru lu jigéen baaxut mu jóg jamono danañ toll foo xam ne nangam sabab yooyu yëpp dana ci bokk kon del góor day dellu si yëfi góor yooyu yëpp ay sabab la kon nag ñu wattandiku sabab yooyu waaye maa ngi wattandiku looyu nit ñi adab euh, ñu am bàyyi xel gi nga xam ne nii alxuraan wax na ko xaaj gis nga njaalo boo koy tuumaal ni sax na fekk ne na ngeen tëll nekk ñeenti góor nekk góor yoo xam ne ay gor ngeen na ngeen nekk ñu maanu ngeen fël ci bopp koñ kenn jiw wax ko sa moroom ngeen gisandoo ko dàkkaraam di dugg ci pëyi ndaw si comme bantu tusngal buy dugg ci potam mu ne loolu mooy doon atteb njaalo ñu doog di tuumaal waa ji njaalo su loolu amul nag ñen tuumaaloon su manqué benn nit wala kenn nekk ci jigéen sax dañ leen di gëtam dañ leen di caw ni léegi nag naka yow nga gis benn innocent boo xam ne xamul lu géej gi di wax sol tubéy joo xam ne benn star nee na xale waali ya waalee ko fi génne mu dem soli ko ah, sol tubay boobu di dox dégg nga ñu jàpp ci àll bi di dóor góor jigéen la nga accusé ko ne góor jigéen la nit ñi ñëw dóora dóor ba bakkanam dee fekk mu ngi de bakkanam a ngi rot te du góor jigéen yàlla xam na ne col gi moom moo ko trompé innocent la ci col gi xamul nu ñuy royee daf doon roy daf doon toppandoor waaye xaqiqatan du góor jigéen sëyut ak góor nga rey ko ñu atte ñu rey ko ngir lan sa accusation boobu yow maa ngi wattalikoo nit ñi bàkkaar boobu toog rek nit di wax waxu jigéen wala sol sol goo xam ne solu jigéen la tan yéen yoo day roy benn artiste wala benn nàngam te xamul ne lim sol solu jigéen la wala lim def sii ñu góor jigéen la te yëggu ko yow nga ne eh, góor jigéen bi góor jigéen bi ñu daw jàpp dóor ba muy bëgg dee dëgg-dëgg maa ngi wattandikuloo nit ñi charia mbiram ray gis nga ci charia ci njaalo fii danaan ay bu sangewoo sax ñu doon di koy rey bu nekkee ba jëkkër bala wala man jabar bu amul jëkkër ak jabar nag ñu nekk fa dañ koy caw mais côté bëlee góor góor jam ba mu dee mooy àtte bi am na jëkkër amul jëkkër suñu néew ci ndégg kon loolu maanaam gën na gravité sax njaalo gën na garaaw njaalo kon nag kooku bala nga ciy accuser nit segam njaalo rek lan la wax quatre points waxuma laal li gën a garaaw njaalo kooku bala nga ci accès nit il faut faire douce attention il faut nga def nànk ba am yaa des preuves yu leer mais sénégalais boo solee lu ndaw peut-être yëngal say baaraam sax ñu ne góor jigéen góor jigéen ñu rey déedéet man d'accorduma loolu man damay wattandiku loolu ni ñëpp loolu parce que it nañ ci ragalaat suñu diggante borom donte neexuñu ñun ñëpp waaw oo ko yedd ko soo ko mënee yedd soo ko mënta yedd naturel ci moom ki ko mën a yedd yedd ko waaw foofu loolu laa fay dénkaane di wax rek ne ñu bañ cee gaaw ak séddit waaye maa ngi wax ne feebar bi lu koy joxe bokk na ci yor sa na nan ko wattandiku di sob soblu lu sa sëy ak moom di moom dem ba kanam ne kanam bi dalaa sàppi góor dafa bëgg lu bees man daal foog ma foog ma iseen mos ci ginnaaw gis nga maa ngi lay wattandiku noonu soo ko mosee seetaane dana lay wax ne la fii moo dàq sa jabar su nekkee ko xam ne xelam yeewu jàpp nañu lu mu la bañal rek mu dal ci kawam te fekk islam nee sa sox sa jëkkër su nekkee ci lu xaraam bul moom ah nim ko nim la mënee lakk dugal la safara noonu nga ko mënee lakk su la naree dugal ci leneen kon nag foofu jigéen ji nga xam ne matut dalay topp jox la ginnaawam nga sëy moom bis boo ko essayé essayé wati ko yàlla roof la feebar ba fa ngay jaaree génn fa doyal ci moom dem di wutiwaat góor kon nag liñ jàngale ne ñoom lóot ñoom lóot seen mbonteef gi mu ngi juddoo woon ci sëy ak seen soxna yi seen ginnaaw nan ko wattandiku maa bada qawmu luutin bi wat in nisaain fi adbaarihinna kon nag nan wattandiku loolu ndax dafay dafay dafay indi ay lor dégg kon wax naa la fi mu daganee wax naa la fi mu araamee dinaa la wax it nag fi nga xam ne nii foofu lañ koy foofu lañ koy euh, sibee waaye dinaa la wax teggin yi nga xam moom lañ ci soxla bokk na ci dégg du jiitu ci dégg nga teggin mooy ishaara ndaw si dañoo bëgg nga ishaara ko ne danga am war a am ak moom rapport dipp ci suba junj ko ko booy xëy wala boo xëyee ngeen nekk ci kër gi wan ko ne ko guddi bëgg naa ñu am rapport balaa guddi muy nettuwaaye xolam ndax ferte xol bu sedd li muy am ak fer fer bi muy am ak bànneex bi muy xalaat su ko defee maanaam xol baa ngi féex mu ngi féexal xolam ndax xale bi juddu réflexe day am reflex ci xolu yaay ji su fekkee ne maanaam comme photocopier la mel rek papier bi nga dugal ci machine photocopier bi bii génnaat kiif kiif du bàyyi dara kon nag sooy sëyeeg moom fekk xolu ndaw si amoon xañaan wala nangam dafay daf daf daf daf koy daf koy daf koy dafay xale bi di copier loolu moo tax dañuy wax ne ñetti aktu moo am ñetti mbokk aquka dawaay aquka daay aquka xisaay aquka dawaay mooy dégg Euh, euh, lekk ki naan yooyu ak i mbokkam loolu doomu aadama bi ay mbokkam la dañoo juddwaale moom mënu koo bàyyi aqu ko bàyyi mooy saafara ci ngay saafara di dem di naan ay aspirine ak ay garab ak i fajoo ko faju loolu dañoo juddwaale moom dégg nga aqu ko mooy xañaan i soxor ak mbokkam dañoo juddwaale moom yooyu nag da nga koy nettoyer nettoyation boobu nag moo tax ñuy la isaara ko da ngeen war a sëy mu koy préparer xolam di féex loolu dafay feeñ ci ndaw si maa ngi wattandikuloo jigéen ñi ñu bàyyi ñëw ba war a seeg seen soxna di ko nettali ay problème tey sa mag bi lii tey sa yaay lii la ma wax tey lii laa daj ci kër gi sa xolu jëkkër di yéeg xol bi di yéeg yaa ngi augmenté xol bi te bér la ne kii dafa wàcc tey dañoo war a ànd maa ci guddi ci yow nga ne fa di di di nettali lu lu la naqari ban ba yéegal sa xol bi ci naqar ngeen ànd nga foo yaa ngi fa waaye naqar gi dañu gub effacé gu ci xol bi moom it effacé gu ci xolam bi ngeen ànd xale bi réflexion wu ci loolu moo tax da ngay gis doomu aadama boo xam ne day jékki-jékki rek di mer kenn du ko def dara muy mer bi di bon nan la man sax loolu tayuma ko quoi démb da ñëw fekk sama rab yi ñëw quoi du dafa am lu seen ci yaw kon nan wattandiku di ànd ak suñ soxna ci mesure yooyu nan di dugal bisaara mooy junj mooy awal bi jiitu wasaani ñaareel ba ab taxaarut mooy laab na nga fexe fexe ba laab da ci am solo trop trop laab gi ngay laab dégg naa ci mag mu ne mooy waral xale bi lépp lum dugg rek mu sotti ba ca topp mooy xale bi jaamu yàlla dana ko yomb mag mu ne lëng julli sax yomb na ko waaye jàpp ji moo koy téyal mag mu ne lëng du julli sans jàpp am na ci dëkk bi laxdari ne la wa man salla bi xayri wuduyi aamidan fa huwa kaafirun ku julli te amoon jàpp yéefar nga nga gis mag moo xam day julli te amoon jàpp te tey ne amoon jàpp tayala njàpp ji dara yóbbewu ko lu may yu nii da koy indi kon ñàkk a judd ci laab daf lay xiir nga bañ laab judd ci laab dafay yombal doom bi doomu aadama mu yomb di laab te bu yombee di laab dana ko yomb muy jaam yàlla dégg kon nag nan nan bàyyi xel ne laab ci la bokk mooy dem jàpp ji ba set lum xat-xat waaye dégg nga ñëw nga wàcc rek tayal naa dama sonn tëdd na ñolong ca lal ba sobeegoo wala laabu goo nekk ca foma foma foma ba nag ba ne cabax sëy ah, yaa ngi yaa ngi rey ay affaire yu am solo yoo xam ne xamoo fu yàlla di sababee doom te yàlla bu ci juree doom foofu da gis ci xale bi lu la naqadi nga ne ci te fekk yaa ko waral hmm? kon ñax naa la ñaareelu point bi dégg nga yi ma wax nag ay aadaab la mooy teggin yi ma waxoon ne dinañ ko gën a leeral wa thaalisu ñetteel ba mooy libaasun bi saraawili na nga sol dara donte benn caleçon la na nga ko sol dégg nga sa jabar mën naa def dung yaramu neen ba set wecc waaye yow ku góor ki mënoo def dung du ëdëb dañoo bëgg na nga dese dara dégg nga mooy soo xoolee sax ci télé bi dégg nga ñiy jaay ambulant ñu ngi koy jaay ay gilet maalo yoo xam ne day ànd ak ay caleçon caleçon yoo xam ne dafay bàyyi dégg nga du la yàqal nga am plaisir comme ku def dungu dégg waaye boo xoolee dégg nga ñoom borom xam-xam yi moom lañ tuddee sarawil panca kon nag ci ëddaab yi la fexe ba sa jëkkër bu doon def dung ne ko de de de del de del sol lu lu mel nii dégg nga del sol sa euh, kiloot waaye su moom a gënal soo sa fekkoon ne yow ku góor kii daawoo ko def nga dégg lii fexeel ba bis ni ki nga wut sa ay panca wala ay kiloot yoo xam ne nii yu bàyyi lay doon nga koy nga koy nga koy fanaano di ci àndeek sa soxna dégg nga xool xale boobu te yàq dina xale boo xam ne su juddoo xale la boo xam ne ni yàlla da koy suturaal day ànd mbooloo mu bëri ñu naroon def fàccaan yàlla def ko moom moom boppam di métti demu wala ñu naroon defee xay yàlla def moom mu am fu mu jàdd ba du ko fekkee lu ne rek bu naree ñaaw rek yàlla dangay gis yàlla da koy supprimer du fekkee ñaaw ñaawteef googu yàlla da koy suturaal waxtu wu ne ndax sutura gi ko bàyyi bàyyam juree kon sutura yaa koy njëkkee ci sa ci sa ci sa ci sa biir bi ngay ànd ak sëy maa ngi la doon wax ci njëlbeen nga ne isa taaba aslul mari taabat forom as cam banqaas su baaxee lépp dafay baax cosaan bu baaxee lépp baax te fii mooy cosaan fii mooy fondation des familles dégg nga nikaawu asaasul usrati yi borom xam ne nun sëy mooy fondation famille dégg nga kon nag nu wattandiku ñàkk cee dé nga teg dara dañuy sol dara donte ak ci loolu noonu koy sol bañ a def dungu ñu bàyyi ndaw si nag moom mën naa def dungu foofu moom sa euh, adaab ko ci dégg nga war raabi ñeenteel bi nag mooy duaaw ñaan dafa am solo ñaan gi dafa am solo dégg nga yow da ngay xool tubaab bi nga xam ni moom dafay bind benn portable rek ne la kii antivirus la ne la kii maa bind portable bi bind antivirus dégg nga bindaat virus jaay la portable ne la application bi de antivirus la boo ko defee man maa defar virus waaye wax naa la ne la antivirus baa ngi nii kii boo ko defee moom mënu virus bi mënul dara moom mi defal virus kay bu defaree antivirus nga doyloo ko ba tax nga dem di chargé application antivirus yàlla bind nit bind seytaane bind ak anti seytaane ne la lii anti seytaane la jël ko dox ko seen digganteeg machine bu bees bi ngay waaj a am muy xale bi ngay waaj a jur mais lu tey rek doo ko utiliser ñaan googu nag nañ ko di fonkaat te ñaan gi guddut da ngay gis jigéen ju mokkal wooyu tiki ba mu jeex wala wooyu waali ba mu jeex te mokkalut ñaan gi góor it mokkal eh, da nga lil waayen ba mu jeex wala ba mu jeex te mokkaloo ñaan gi loolu nag maanaam ak mbon la rek du dara ñaan goo xam ne ñetti baat la wala ñeenti baat hmm? ñaan gi nag mën ngaa foo du du dañ naan salaamaaleykum rek nga ñaan ko déedéet mën ngaa foo foo ba dara desul lu may sa zàkkara dugg nga ñaanee ko fa noonu lañ ko bëggee bu dara desul lu may sëy nga ñaanee ko fa ñaan gi nag moom dinaa ko joxe waaye dinaa joxe beneen ñaan comme faayida la xam ne mag ñi laa fekkoon ñu bàyyi ko fi muy juróomi téeméeri salaatul faatiya nga ñaan ko ginnaaw boo amee laab ba pare di ànd ak sa soxna ne doom bu góor laa ci bëgg ñu ne wax ji du teppeeku da am doom ju góor doom ju jigéen laa ci bëgg ñu ne wax ji teppeeku yàlla dana la may doom bu jigéen ñu ngi koy def comme faayida képp ko xam ne yitteel na la nag yaa ko moom mooy juróomi téeméeri salaat faatiha bala nga ànd ak sa soxna dégg nga nga mébét ci doom bu góor wala doom bu jigéen euh, ci làmminu mag ñi dégg nga am nañ ci ndigal jox nañ leen ko ci ndigal yi dégg euh, di wax rek ne kon ñaan gi alquran dégg nga ñaan gi lii la allahuma janib na seytaana wa janibi seytaana maa razaqtana ginnaaw boo waxee bismillah nga ne allahuma janib na seytaana wa janibi seytaana maa razaqtana dégg nga su dee nañ ci xadis bu wér ku mel ne Abdullah ibnu Abbas mu ne dégg nga law anna ahadukum ida ata ahluhu xaala bismillahi allahuma janibna seytaana wa janibi seytaana maa razaqtana fa inna qadara baynahuma fa inna qadara baynahuma fi dalika al walad lan yadura dalika waladu seytaana abadan Abdullah ibnu Abbas mu ne yonent nee na képp kuy dikkee soxnaam ci yéen mu ne bismillah allahuma janib na seytaana wa janibi seytaana maa razaqtana mu ne añ bi mooy lan mu ne fa inna xadara baynahuma dalika wala dana def seen diggante rapport boobu doom kon jarul dem ci seen jiw ñaanama ma am doom da ngeen am doom ba pare mu ne lan yadura dalika wala du seytaane abadan xale boobu seytaane du ko musaloor kon kay loolu doy na doy na doy na doy mooy xale yi nga xam ne buñu àndeek moroomu xale yi bu saagaa ñu ne non man daal baal li ngay def waaye man yi def may rusloo soo ko saagaa mu ne la grand foyewu ma lii soo ko saagaa mu ne man fayewu ma lii su àndeeg moroomu jigéenam sax ñu dem ci plage yi ñu def sili bu neen ak sitin mu ne mu man lii dama ko rus wax dëgg yàlla yow dangaa ñàkk jom yow ayda yow dangaa ñàkk jom parce que moom mënu ko dafa am antivirus da ngay gis sax góor gu ñëw bëgg leen yàq bu ñëwee ña def silibu neen du wax ak ñoom day dem ci ki wax ki ki muuru ki sol yu di ko provoqué parce que ne seytaane rek moo tax a jug waaye du mën ci moom dara da ngay gis dafay rusa wax ak góor dafay am kersa ci mboolem xeetu mbonteef du dara waaye lu may dafa am antivirus jippi ba muy juttu moo tax lu ñaaw doo ko ci fekk doo ko ci dégg moom xale boobu kon nag nan di respecté ñaan googu noonu dégg ñu ñëw ci beneen audio bi mu gën a oyof rek dégg ba tey naa la waxaat ne la bokk na ci nga laab ginnaaw boo leen sëyee ba pare ñu baree bari dañoo yaakaar ne da ngay ànd ak sa soxna ngeen sëy ba pare mu tëdd ne nga tëdd ne ngeen jëmale fajar boo leen xëyee ngeen kii ñii def yóbbu ko ñenn ñi ñoom dañuy dem ba 1 heure ñii dañuy xëy ba fa soxna si mu tëdd ba ñu di mu dem sangu ci déedéet sariya waxul noonu de ànd léegi jub dem sangu ci léegi bokk na ci boo demee ba ci ki nga xam ne sax dafa ragal ndox mu sedd da ngay gis laa dër danaan la wala yajuzu dagan li man laa yaqdiru attanut ala ma il baaridi ci ndox mu sedd an yaatee muy dikkee zawjatu jabaram ataa yu inde ba tamu préparé al aalatu jumtuwaay dégg nga ila an yaxtari ma nag dara dafa gént falaase di dara alay di ko war ki gént moom toppun ko ko mën naa dafa ragal ndox mu sedd noonu la mel naturel sëyut dafa gént mën naa bàyyi ba ba mu naaj mu song dégg nga dafa ragal ndox mu sedd tey ko provoqué lii indi mu dem sangu ji charian day bañ danaan ko doo sëy ak sa soxna fi ak gaz bi taxaw kooku rek la soxnaam di xaraam di ñàkk dagan lu dul ne gaz ak koy daganal bi ndox mu ndox mi almet bi jumtuwaay yëpp day dajee almet bi day tege gaz bi tege marmet bi tege ndox mi tege mu dër bu sëyee bu pare mën a tàngal ndox sonko dégg lépp ñu ngi lay dawal nga sëy ñàkk sonko sëy léegi tëdd léegi boo melee ni man nekk koo xam ne nii dangaa sawar mën ngaa joxe ñaar ci biir guddi gi yéeg nga seeg sa soxna vers une heure tëdd songu jiwoo moomin mu tëdd ñu dem ba côté fajar dégg nga nekkaat ak moom ba tey léegi yow yaa ngi nekkaat ak moom deuxième fois boo xam ne du laab te yow est-ce que mën nga maa wax sëy bu njëkk bi ci la doom ji juddoo wala bu mujj bi ci la doom ji juddoo xamoo ko kon nan wattandiku di sëy sëy boo xam ne ni maanaam du ànd ak laab te lu koy yóbbee mooy sëy ba pare ñàkk songu mën ngaa amaat ëral ci fajar gi nga àndaat ak moom te boobaa yaakaar naa doo ànd ak laab ndax temps bi du la may ngay dem di songo ji doo ko sax am yëg-yëg bi looy gis lu may sëy rek te boobaa nag yaa ngi sëy sans laab kon loolu la sariya di dawal xam ne moomoo sa bopp boobu boo ànd si sa sonn jugal songu yëkkati ko mu dem songu ji te boo mënee ànd ak moom mu songu sax nga xam ni muy songoo seet ndax bopp baa ngi tooy ndax wa tas lii suuxas li rax si lañ wax ñett ñettal bopp bi ngir ne karaw gi dafa war a ci biir a bu dee sax ci jàpp da gis ñu ne borom sikkin bi may nañ ko mu masaa ko waaye ci sangaay ñu ne ko na xallil sikkin bi ba deru sikkin bi tooy kon charia dafa soxla fi kaaw yi nekk muy tooy ndax maniyu dafay dafay bàyyee koy dégg léegi nag foofu nag kon nag day baax nga nga taxaw koy ndaay sa nettali na moo génnant bokk nañ songu janaaba ci benn ndab kon nag ànd ak soxna bokk songu kooku dara newu ci dégg nga na nan nan ko leeralaale ndax am na njëriñ dégg beneen bi ci topp mooy ginnaaw laab googu mooy beneen bi ci topp mooy maa ngi wattandikuloo nga euh, ñu ñàkk am ijaab dañoo bëgg mu am ijaab ijaab sa diggante ak yàlla mooy sëy foo xam ne sa diggante asamaan si dara neew fa dañ koy bañ di sëy sa soxna asamaan si tiim la dégg nga sa diggante ak asamaan si dara neew fa kooku ci yin sip ci la bokk dégg dañ ko sip ngay sëy sa euh, sans nekk ci benn mbaar wala nangam déedéet comme yéeg ci kaw terrasse wala dara di sëy déedéet xanaa lu dul ne ngant moo fi sës am ngeen ji mu mag ngeen doon di ànd ci biir mbàjj mi ngeen bañ kenn bañ a génn ci biti boobaa nag ijaab gi dana deñ waaye su loolu euh, ijaab dina fa am su loolu amul rek dañ koo sib kon nag loolu du adab bokk na ci adab yi maanaam comme lii ma la wax nii dégg nga kon yi des nag mooy lan mooy li nga xam ne doomu aadama bi moo koy mottali xelam dégg nga kon wax naa la yins yëpp wax naa la ëdëb yi wax naa la li dagan wax naa la li xaraam waaye dinaa la wax ne la nag léegi ñu ñëw ci yàlla eh, dégg nga abdallah ibnu abbas li mu wax na dagan na ani tomtom nga bànneexu bi jamii gis mi ci mbooleem jëmmam ci ma hadda dubri ba mu des ci naawam léegi foofu xam nga nu may nattale xaram tabaski mi dagan na la léppam dagan na béjjën ba ba ca geen ga kër gi ñu njëkk jot ñoom dañoo selvisé ñu ne tanoon ratt ay mbàq jël mbàq ma butit yaa cabine ya gas pax suul kër ga ca topp ñoom ñu ne ñoom selvisé naan waaye nag ñoom liñ xam mooy dañuy ratt mbàq def ci mbaxalu naar ratt mbàq ya waaye cabine ya ñu jël gasati pax suul geneen kër ga ca topp ñoom ñu ne ñoom ay naar lan wala ay leneen lan ñoom xamuñu sànni mbàq dañuy ratt mbàq gi cabinet yi dañ ciy defar benn affaire boo xam ne roti la wala nàngam suñ paree dañ koy lekk waaye léegi ñett ñi kan moo ci def lu xaraam kenn ñi ngi wutee ci seen xel yi ak ci seen tolluwaay ku ne dangaa def li sa xel attan kon nag ki jël jàkkaram jox jabaram mu maral ko wala mu sexal ko kon kooku defut lu xaraam waaye nag dafa jëfandikoo xelam fi mu toll mais kenn mënu ko xaraamal ki sëgg it seex awraay jigéenam jabaram defut lu arab waaye dafa jëfandikoo kem xelam fi mu toll yooyu soo koy def maanaam defoo lu waaye dangay defee loo xam ne ñun xel siixlu nañ li ngay def kon nit ku ne am na loo xam ne sa xel la koy bañ nag bi léppam dagan na bu mu tax nga jël mbàq nga cabinet yëpp suul ci cin la béjjën ya nga suul ci cin la weewa nga dugal ci cin la ngir ne léppam daggan na ma déedéet du kenn du def noonu da ngay jël loo xam ne nag sa xel moo la ko mayul ñun ñëpp xam nañ ne béjjën yi dagan na mais talun wésam yi béjjam dégg nga weewa dagan na talun wésam wee dégg nga mbàq ya dagan na waaye talun jël ay mbaq ay cabinet di ko lekk parce que nitewul kon nag mar ay awraak yi ko mel euh, jëfi bàyyi ma la kon nitewut sariya waxu ca ne xaraam na amul nas bu ko xaraamal waaye bu tax nag nga ñëw jëfandikoo ko kon du la may lépp nga jël lépp foofu loolu laa fay attewoo kon nag bu kenn ku nekk di ko def waaye it nag bu ko defee taxul nga ne ko def nga lu xaraam wala def nga lu ñu ndax bokk ci leen xaraamal waaye nag ñu ngi wattandikuloo waa ji nekk ci loo xam ne da koy yóbbee lu xaraamal ndax ci bu ndaw bi mooy lay yóbbu ci bu mag bi boo yàggee def loolu da nga am xemam sob ne Ouzin xaaral ma ànd ak moom ci ginnaawam moo tax nag jar na lépp loo xam ne da lay pousser lale nga maytu ko te ixsaan day manki ci biir te boo amee ixsaan ci biir dana ci am solo kon nag loolu noonu man foofu loolu laa fay dénkaane di wax rek ne maanaam kenn mënu ko xaraamal waaye it mën na yóbbee nit ki ci mu jëf ci lu xaraam kon jar na mu bàyyi ko ngir bañ a daw ngir daw bañ a jege lu xaraam ndax laa taqrabu mu moom dafa jeexal wax bul jege la kon nag jege bokk na ci loolu dalay jegeel lu lu xaraam ni kon na nga wattandiku di nekk ci dimension yoo xam ne nii dangay ànd ak moom ci noo xam ne du ëdëb di wax rek ne façon yi ngeen ni àndee it charia tënkul ne na ndaw si nekk suuf nga féetee kaw bula la féetee kaw dégg nga bañul ko xaraam waaye soo demee ci téere bu ñuy wax ziwaaj daf lay wax ne jigéen su fekkee dangaa bëgg sa doom ji dégg nga am mu sa melokaan booy ànd ak moom féeteel kaw ku jigéen ki ba noppi te fexeel sa ndox mu mujjee génn ndoxam xale bi bu juddoo day yor sa forme sa teint sa lépp waaye day yor jikkoy ndaw si bu fekkee jikkoom moo la neexut nag fexeel ba chaque jour boo leen àndee di sëy yow na nga njëkk génnle sa ndox ka ndoxam moom ndoxam ne mujjee génn xale bi da koy nuróo rek ci jëmm waaye du ko roy dara ci jikko xale bi soo xoolee après sa jikko lay yor kon fexeel ba sa ndox njëkk a génn ndoxam mujjee génn loolu mooy tax yow xale bi yor sa jikko yor melokaanam waaye su fekkee moom ndoxam moo njëkk a génn nag yow sa ndoxam mujjee génn xale bi dina yor sa forme nuroog yow ku ko xool ne yow lay nuroog waaye jikko jikko yaay ja lay jël kon nag loolu ñun yëpp ay ay sew sew la ci biir ànd gi nga xam ne yaa ngi koy ànd ak sa soxna beneen bi ci topp mooy kele yi ngay di def ñu tuddee ko nii naan dañuy aj ñi naan dañ koy dëpp ñi naan nàngam kele yooyu xaraamut dagan na damay wax benn xissa muhaajirina yi ak waa ansaar yi keroog ba nga xamee ne neen dañuy solidarité di mayante ay yére di jaxasante ñu góor ñi di takk ci ñu jigéen muhaajirina yi muhaajirina yi ñu seen góor ñi di takk ci ansaar jigéen ansaar yi keroog ban ko defee la njëkk a xew bokk na ci waa Màkka dafa mel ne ñoo newoon ci àll bi waa moo Medina ñoo newoon ville bi ñoom dañoo tàmmoon bu ñuy sëy seen soxna dañ koy dëpp dañ koy juutal suñ koy juutalee maanaam du ànd ak moom ci ginnaawam waaye dañuy ànd ak moom ci kanamam dégg nga biñ commencé def loolu eh, yàgg na ñoo màkk yi gun ko biñ ñee takk ci jigéenu màkk yi kenn ci jigéenu màkk yi ñoom xamuñ woon juutu ñoom dañ daan tëdd rek eh, mu góoru Medina yi kenn ci ñoom yor soxnaam sëggloo ko bi mu ko sëgglooyee soxna si ne du sëgg mu ne ko da sëgg ñu am ci problème ñoom ba ju yenente moo ne woon dégg nga masjid ju mag bi moo ne woon dégg école bu mag bi madrasa bu mag ñu def direct ci yenent ku jigéen ki wax ko ne ko daf ma wax ne ma naa sëgg ku góor ki ne ko man maa ko wax na sëgg moom mu bañ man du ma sëy te sànq sëggul yenent wax ku jigéen ki ne ko su fekkee sa ginnaaw la bëgg ànd ak yow bul sëgg kooku maa la ci jox ndigal bu fekkee nag sa kanam gi ci lay ànd ak yow boo demee nanga sëgg lii la yenent tontu waajur ndaw si dem nangoo sëgg ngir mu sëy ak moom ci kanamam kon nag ay kele yëkkati fii ak fii yooyu kenn du ko xaraamal kenn du ko sib waaye na nekk na yaa ngi ànd ak moom ba tey ci kanam ndax soo demee ci ziwaat téere bii ma lay wax daf lay wax sa jigéen su nekkee dafa xaamil ëmb ëmb bi diis lool mu ne may nan la nga dëpp ko dikkee ko ginnaaw waaye fil ji ci pëyam bu mu nekk ci dëbburoom na nekk ci pëyam bu mu nekk ci ginnaawam kon maye nan nga dëpp ko ngir kele bii moom a arrangé ngir nii laa mbindoo nii laa mën a see am na ñoo handicapé lan am na ñoo seen biir moo not seen seeni awra ba buñ deful nii duñ mën a egg fan war a yegg kon su ko defee maanaam ñu jëfee noonu da ci am solo beneen bi si topp mooy muqaddimatul jimaa bi nga xam ne daf cee war a am mooy fo gi ngeen war a fo te rek bañ a sëy yéen mu ne bu leen sëy menn bàyyi ma loolu dafay dafa dafa am solo yi muqaddimatul jimaa mooy foog gi ngay fo ndaw si ñu ngi wax ne bokk na ci lenn ci illaay loolu mooy jigéen man yow mi ngi bàyyeekoo ci doxam góor man yow mi ngi jóge ci ndiggam ci yenn ci taawili borom xam-xam yi ñu ne nag pour maanaam comme ça neexu sëy 100 pour cent la moom moo moom 90 yi yaa moom 1 yi yow sa 1 bi nga teel koo jot pare da nga koy yóbbee fitna nga foog moom li ngay jiital ngir moom mu daw ci ba cinquante pour cent boo leen àndee bala ngaa pare muy mottali cinquante am yi des lii rek moo tax nag ñu def muqaddimatul jimaa bokk na ci xikmaat looloo tax ñu def muqaddimatul jimaa kon nag maanaam ñu bàyyi xel it bunt boobu ndax lu am solo la pour doomu aadama bi mën cee bàyyi xel bu baax a baax a baax di wax rek ne fi may tëjee suma wax di ko dénkaane nag di ko dénk ñépp bu yàlla defee beneen yoon ñu am tawféex dinañ ñëw leeral mbërëg ak la ca aju waaye fi may tëjee suma kàddu di euh, di dénkaane mooy maa ngi dénkaat góor ñi ñu rafetalaat seen comportement ci col ji di wax ñaar yi ñett ngi nii ku bëgg ci mucc ci ñett yi na nga lu mucc ci ñett yi bi ci jiitu mooy sol lu xat sol tubéy te yeggut ca kaw nga takk ko kiris koros dégg ak fo yow góor guy fowee sa ndaw góor guy fowee ndawam sol lu xat ak kiris koros ñett yi maa ngi wattandikuloo góor ñi bu fekkee ne fowee sa ndaw day waral gàtt fan day waral ak lorog jëmm li wan mooy njaalokat moom wax na ne du deewaale ñett du deewaale taar du deewaale alal dégg nga du gudd fan kon ñett yooyu yëpp day dem beneen bi ci topp mooy lañ jàngoon ci xadir ak Moussa ba ñuy jubbante miir bi ndax ak kanju ndàbb lu ne woon ci biir mu ne dégg nga wa kaana abuuma seen bàyyi dafa ne woon saalih am lu mu ci miir bi dégg nga loola lañ loola tax ñu jubbante miir bi yow nag sa jëmm ji miir la sa ndigg li man yu bi ci nekk ak ndàbb la bu ci suñ borom def nit ku baax la ku war a judd ma nga yabal ay xadir ñu lay sàmm ma ngay yabal ay muusa ñu lay sàmm ba tey keroog boo xullee ba jël sa ndàbb loolu def ko sama nii boobu nga def ko ci protect dugal ci paxu duus wala nga aj ko ci kaw miir wala sànni def loo neex caaxaanee leer gu seer yow baal xam ne miir bi amatul garantie garantie ba dañ na de xadir ma ko doon sàmm ba na koo sàmm ndax xadir bu fa kan su amatoon du jubbanti miir bi léegi nag nga nekk xottu buy dox miir ba léegi mu daanu mooy day rappel jëmm ji jëmm ji day teel a dellu xay bu ndax lu ñëw dal ci kaw kenn protégé du ko kon sa ndàbb loolu sàmm ko tax xam ne nit a ngi nekk di dox dépense yomb ko lu mu dugg mu sotti fu mu déposé liggéey mu sotti fekk ki ne ci ndiggam li moo tax fu mu dem yàlla yëwéndal ko keroog boo ko caaxaanee moo waral nga toog ak benn mag maa la booy jamonoy 98 booy xoolal nii leen ma defoon nii leen ma langalee woon nii leen ma nangame woon fekk leer ga moo tuxu rek léegi leer gam tee woon nit ñi respecté ko nit ñi fonk ko dégg nga ñëpp bëgg ko fekk ñu ngi ko bëgg woon ngir doomam ji ji nekk ci ndiggam li moom la sànni ca paxu duus ma léegi nag di nekkoon nit vidd kenn amatut moom yëg-yëg ci moom kon di góor noonu wattandiku loolu ba ca topp mooy sollu xat dawra dama bi boo koy jàng booy jàng xulum ñu lay jàngal matière bu ñoo wax xulum sana bi dan lay wan ne la deretu doomu aadama mi ngi setee ci mu sol lu yaatu waxaat la bi ci topp ne góor buy sol lu xat dafay demee ngóoraam li la koy xamal doomu aadama biiram mi ngi daw ci mooy 35 degré 37 mais 37 degré 35 xam naa sama jumul ñu jàng xulum ci biir dana ma ci corriger am na ñu def xulum maanaam ñu ngi lay wax ne 37 35 lay daw léegi nag yàlla ni mu bindee doomu aadama boo xoolee benn cër rek moom la génne ci bitim mooy way yooreem yi ñoom rek lañ génne mooy awraam yi rek la génne duggunu ko ci biir mais mbooleen organes yi boo xoolee mi ngi ci biiru doomu aadama li tax duggunut way yoore yi ci biir doomu aadama tàngoor ba fa nekk way yoore yi ak attanun ko kon day demee ngóoraam dégg nga soo ko doon isee nga jël benn mala nga jël maanaam li tuddee yooreem yi way yooreem yi maanaam maanaam li ci suuf zàkkaraam yi way yore mi nga bës ko mu dugg ci biir nga takk ko soo ko takkee bala nga koo takk danga koy teg nga peese ko nga xool temps ci gramme bi mu la jox su la joxee 10 grammes wala temps ci gramme bi mu la jox nga dugal ko ci biir nga bës ko ba mu duggaat ci biir nga takk ko mu ne fa dans une minute nga génnewaat ko peese waat ko da ngay gis gramme yi dafay moyen moitié bu peese woon 10 5 lay peese après ngir lan tàngoor bu da koy da koy lakk da koy ruyal da koy tuuti da koy jeexal da koy feebalal day yóbbee xuwa day yóbbee kàttan léegi nag yow ñu ñëw indil la tubay bu xat yemoo ci nga ne da bëgg a criss booy criss cross da nga koy préparé da ngay sol teg ci ab kirootu fëgg jaay muy ñaar nga tekki ab tubay bu xat nga criss cross leen nag ñetti tubay yépp benn bu ne catam di feeñ catu caleçon bi di feeñ catu culotte bi di feeñ cat tubéy bi di feeñ nag nga programmer ko noonu nag xëy nag ca suba nga génn sa néeg ba 18 heures wala 19 heures ngay duggaat sa néeg gis nga boo dugalee sa loxo sax soo seetloo boo dugalee sa loxo sa biir tubéy da ngay gis day xepp ne mbuusu ndox leen fa toj ngir ne mi ngi ñaq ñaq bu jéggi doyo depuis ci suba ba tey 24 heures sur 24 sa tubéy ji mi ngi tàng jër jër jër gis nga tàngoor boobu degré bi nga yokk mooy nga nekk ci nag ñaata at fukki at ñii dañuy xale yu góor fukki at fukki at yooyu yëpp nga ne ci caaxaan yooyu gis nga sa tubéy ji nag ca lay dem nag ba nga xam ne nii maanaam sa ngóor gi ci lay dem ba jeex tekk nag maanaam boo toppee tubéy ju xat da ngay dem ba ci kanam waxuma la sax pour mën a sëy waaye pour yëkkati sa zakaram mu taxaw ne cocc rek daf lay tëj kon xale yu góor képp ku doon sol lu xat maa ngi la koy wattandikuloo mag ñi caa yi daan sol bokk na ci li waraloon ñuy dem ba téeméeri at dem doom dañuy deewaaleeg seen ngóoram waaw dañuy deewaale seen ngóoro te léegi tey ñi fiy dee ak ñu néew la dañ leen di compter kon nag tuba yu xat yi maa ngi koy wattandikuloo képp ko doon def beneen bi ci toog muy ciris kolos képp koo xam ne sa tubay du yegg ci kaw bal xel ne mën ngaa am lu ñu tuddee faible sex faible sexe bokkut ak mën a ñàkk sëy mën nga sëy bu baax a baax yóbbu ndaw si fi nga ko bëgg a yóbbu waaye li ngay génne sa kanam ndox moomu dafa am ay lu ñu tuddee ay walax jaan ay sperme yu welax jaan yooyu noonu benn bu nekk dafa war a mat su matut day fekk kanamu ndaw si am na benn nen bu fa nekk boo xam ne nii dafay xaar liy jógee ci yow dajeeg moom mu formé wu nekk doom nen boobu nag gis na balaa ndox mi liy ñëw di ñëw ci moom di yegg si am na ay affaire yu ne ci kanamam yooyu ñooy xool walax jaan bu néew doole ñu ne bii matut du dugg dañ koy rey balaa egg rek day dee affaire yooyu dañuy rey dañ dañ koy rey suñu gisee walaat jaan bu mat dëgër suñu yooyu rek moom dafay dugg duñ ko mën a ray boobu bu demee mooy formé wu nekk doom mooy waral yi des yëpp dañuy dañuy sooxe xam nga nu mel nga dajale woon dix soldats yabal leen ne leen daw leen dem Tamba yi ragg ta mel ni man ñoom duñ paase tëngéej yaa ca topp xaw a dëgër duñ paase dégg nga yaa ca topp xaw a dëgër Fatick dun ko paase yaa ngi ñoom yaa ngi ñoom bu amee benn bu dëgër moom mooy yegg Tamba su amul nag benn du yegg Tamba mooy waral nga seeg soxna si ba pare benn formé wu ci nekk doom li nga dugal ci ndox lépp dégg nga koor yi garde yi ne la benn baaxu ci yépp demee à côté chaque jour boo dugalee rek benn du yegg soo bëggee nag sa soldaar yooyu ngay yebal muy yegg sa koor yooyu ngay yebal bu ci dem mën a yegg ba fa mu war a yegg dangay ngay yeggali sa tubéy ci kaw muy yegg nga koy gis nga booy takk sa tubay muy yegg soldaar yooyu ngay yebal ndox yooyu sperme yooyu bu ci dem rek day yegg ba fa mu war a yegg su ko defee doom dana ci judd moo waral nag maanaam di cylscroce dangereux da ngay dem ba nekk mag yor soxna boo demee ci médecin yi ñu xool la ñu ne non moom koy ku góor ki feebar mi ngi mën a sëy ah xool ko jigéen ki ñu ne feebarut nga ne ah kon nag dogal la yàllaa ko tudd fekk dogal la mais bi sabab yaa ko sabab bi sabab bi kat ci sa sabab ci lu juddoo bu fekkoon ne daan nga takk sa tubay fa nga ko war a takk yàlla ne yeggalañ ko su tubay ba ci kaw soldaar yi ngay yebal mooy walax jaan yi ngay yebal yëpp dinañ ekk incha allah bu soobee yàlla dangay ngay am ay doom ba dangay ngay am ay cheikh waaye boo xoolee léegi jamono ji ñu bari feebar boobu daf leen dal waaye ni ngi wax ne ni ngi wattandiku ñetti yooyu ñu ngi leen koy tere muy kiris koros dégg nga muy muy muy muy muy muy beneen ba ca topp muy dégg nga sollu xat dégg nga beneen ba ca topp mooy fooye sa ndaw ñu ngi koy wattandikuloo képp kuy góor di wax rek ne guddal nañ trop mawdon bi bëri na trop trop trop waaye du dara lu may rek bëggoon ko leeral leeralu xaasiya ak nammeel gi am ci groupe bi def ko comme thème boo xam ne nii maanaam sëri ca lay doon loolu rek moo taxoon ñu guddal ko waaye ñi ngi jéggalu yàlla bu baax a baax di wax rek ne li ma gën a intéressé mooy maa ngi jéggalu képp ko xam ne sama wax yi gis nga ci ñàkk teggin maa ngi ciy jéggalu yàlla di leen ci jéggalu di wax ne wallaahi al azim jublu ma ci yàq jublu ci wax luy lor pour pour maanaam leeral ñi nga xam ne nii amun xel ñu dégg ndax soo waxee ci nastu toj yax bi day jëriñ ñi nga xam ne amul xel waaye nag ishaara yi moom dana jëriñ ñi am xel al ishaaratu takfi liman aqla loolu rek moo tax ñu doole ci ay ishaara am na ay ishaara boo xoolee ci si biir wax ji waaye am na yoo xam ne dama ko def fang daaj ngir ne ñi ñi mën a dégg mën koo dégg waaye daal ñu ngi jéggalu di wax na ñu ngi jéggalu bu baax a baax ci guddal bi bëggoon naa cee ñambaas sax mbërëg bëggoon ci jàngale ay sew-sew yu nekk ci biir mbërëg waaye xam naa ne du ci xat waaye daal ñu ngi jégalu bu baax a baax a baax a baax a baax wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.